tey ñuy xuus ci suñu biir émission mm-hmm. di waxtaan ak yow tey ñu dalal la fi ñu gis doyen ni nga ni nga ni nga ni nga nekkee ndaanaan mm-hmm. sa diggante yaak père bu xar kenn dootu ko naa table mm-hmm. ni ngeen àndee ci seen liggéey bu rafet sénégalais yi ñëpp bëgg leen doyen ñu gis léegi euh, liggéey boobu bari lool lool lool ndaxte bu njëkkoon euh, yéen euh, da ngeen ni imiter voix nit imiter ko di di toppandoo nit ko mu mel ni yéen la mhm. muy talent boo nga xamante ni dafa nekk ci yéen mhm. tey ñu gis euh, Kawshen mhm. euh, ñi nga xamante ni dañ ci yéeg sax te duñu reetaan loo kenn waaw ci ci ci ñàkk a jàng bi la wala ci tëb rek dal bi la wala doyen loolu nan nga ko nan nan nga koy jàngate waaw di la ziar ci question boobu ci am solo gu mu am solo waaw olof day wax ni lépp looy dugg lu nekk na fekk nga xam ko mais Sénégal malheureusement léegi dafa bari puccaxoo xam nga tey jii exemple rek bi ma lay jox ci gàttal yow soo doon jaay ngooñ léegi nit ñi commencé di jaay euh, maanaam ngay jaay ngooñ mu commencé dox léegi nga gis cinquante jaaykatu ngooñ yu toog ci sa yoo xam ni xamuñu fu jaay ngooñ jóge xamuñu lan la ñuy jaayee ngooñ xamuñu fan koy baye waaye yow mi koy jaay muy muy muy dox rek yaa tax ñoom danañ jënd ngooñ ñëw jaay ko pour te dire que métier mi nga xam ne moo doon métier am aar. Mhm. gars yi di ko def daan ko teg ci yoon ci njàng ci xam ko ci mbappat ci defi formation léegi ku jóg bëgg a siiw mooy waral nag seen plateau yi ngay gis léegi ak seen yi ngay gis léegi ñu di ko monter. ci mhm. dëkk bi dangay gis ñu ñi ci gis ñi ci ëpp ñu ciy taxaw wala ñi ëpp ci petit écran bi. Mhm. du ñu ay artist ñu jóge fële lañ rek bëgg a siiw. ñëw pour siiw. moo tax nag mbir mi léegi kenn xamatul ki ko mën ak ki koy dunde ak ki koy dundal ak ki koy jéem dëgg la mm-hmm. ba tey foofu la ñuy taxawaat mm-hmm. ndax te bu série yi nga xamante ni léegi mm-hmm. dafa bari lool lool lool lool dañuy gis ni yéen koor gi la seen liggéey di gën a dox bu dul koor gi euh, série yi nga xamante ni moom la nit ñi di seetaan xoolatuñu ñi nga xamante ni dañoo mën wala ñu jàng ko casting bu nga àndal la ñuy xool wala ñu xool xale bu góor bu jantal bu njool ñu jël ko dugal ko ci série yi wala ñu xool jigéen ju jongoma mhm. ñu jël ko dugal ko ci série yi xoolatuñu mhm. euh, comme ni ma la ko waxee woon léegi rek xam-xam bi xoolatuñu loolu mhm. te yéen ngeen am talent loolu macha allah euh, est-ce que liggéey bi yéen a ngi ciy gis seen bopp ba léegi waaw ñu ngi ciy sant bu baax euh, aussi tamit dama koy wax toujours ma ni yenn producteurs yi ñoom dañu produiratul les artistes comédiens yi ko def métier. Euh, xëy na nag li tax loolu mooy man mi tey soo ma bëggoon produire du bokk ak ki nga xam ne dafa ñëw rek pour siiw déedéet da ñëw ñu waxtaan waxtaan bu wóor teg ko ci contrat yu wóor nga fay ma xaalis bu wóor ñu mën a liggéey. waaw mais soo gisee nag koo xam ni moom moom na feeñ ci télé bi rek nga xool profil am donte sax mënul la muy def. na am buzz moom na am rek. na génn ñu naan ko yaa joué woon lee mu naan waaw nangam nangam gaa yi xam ko ci moom looloo ko ci intéressé kook boo ko gisee ak nam la koy yombale mais mm-hmm. kooka ngay jël mais da ngay bàyyi ki nga xam ni moom moo ko def métier et pourtant loolu mooy musiba nag te damay araftu ñi ci bari ñoo xam ne seen taar la ñuy utiliser ci télévision bi mm-hmm. wala seen seen seen waa seen rafetaay gis nga aar bu taxee ngay joué loo xam ne si tey par exemple lu doy waar la dund gi yàggul de nañ ci def attention da ngay koo xam ne naan man loo ma jox ma jee ko di ngand ngandlu dundu aar yàggul waaw saa à dire que maanaam euh, dundu aar yàggul laa bëgg a wax xam nga lu tax yàggul mhm. loo aay aay bis dina ñëw ñu xewal keneen koo xam ni par la force dañ naan kii xaw mënoo ju dara gars yi léegi xoolatuñ ki man wala ki aay wala nangam defal benn affaire mu def buzz yow xew nga mm. xoolatuñ ki ko def métier wala professionnel bi wala wala ki nga xam ne daf ko mën di ko teg si yoon non non non. te bës bi sax daa mel ni yàggatul léegi. te bës bi léegi yàggatul léegi. Mhm. ay tiktok ak yi nii ak nu mu mënti demee. ay bës un mois trois mois lay am keneen fël. Mhm. donc suñ taxee nag nga def ci loo xam ne si tey jii ëllëg danga koy réccu su boobaa booy jooy kenn du la nax. kon nañuy valoriser suñu bopp nañu moytu bëgg a siiw wala bëgg a am bës. rek tax nga ñëw di sarxe sa bopp ci image ci loo xam ne joxuñu la ci dara. te jàngiwaat. amul sens nañ jàngi. dëgg la waaye mm-hmm. euh, ñu gis yàq per bu xar ni ngeen déggoowee foo leen toog euh, daa di daa di daa def fawantu def dara sax day neex sénégalais yi. Mm-hmm. yow tey jii buñ la joxoon. xaar mbay ma jaaga wala kenn boo ko imité day mel ni moom moo toog mm-hmm. loolu talent bi nekk ci yow euh, danga nga ko jàng wala dafa jékki-jékki nekk don bu ñëw ci yow wala fan nga jaar. waa xam nga ku ne Louga ni aar parce que booy xool ci mel ne cercle de la jeunesse. wala ay ngalam de Louga. xam nga ni ku dëkk kër Baye Père El Hadj Mbaye ñoom. grand Hérif <laughs> Mbaye ñu ngi leen di nuyu. ñoom Malick Mbaye. gaa yëpp ñu ngi leen di jaar suñuy xarit lañu. ay artistes lañu. ku dëkk foofu. Mhm. wax dëgg yàlla xamul lay jaaxal mais du talent ak aar moo tax souvent damay nekk fii ñuy tagg ay ponkal sax ci aar bi. Mhm. d'accord nangul naa leen waaye damay xam ne rek yàlla suturaal na ma daal. waaye nag dëkk bi ma jógee def cee am pàcc bu rëy bum bu ci am. soo dëkkee Louga da ngay boo boo juddoo rek mën naa ni que da ngay am. aar aar ci sa yaram. <laughs> sa deret don la. mais nag don kese doyul da nga ciy liggéey nag. di jàngi ah, bi man bi ma amee don bi ba pare. damaa dem def ay formation jóge ca mbappat nag. dëkk yi may lim nii yëpp fu ma fi fanaanul yendu naa fa. muy yenn dëkk. ay diggante tëggandoo ak peex taal ak yëngu ak taal bax léegi yaxi ñay ak cuuruur ak mbadox na ca neneen kañu karar bopp ca ñeneen jëf ñang wam tan faal ak poto park sàkkal ak lana sàkkal ak sañ basi sañ war ak jëmoon tan tax na ka dilako Touba sermi nagaari ñak ba ginnaaw ray kanam ray ba ngay dugg barkel ba ba ngay dugg Espagne foofi jaar bu ma fa dugg joué fa def naa fa genn tàkkusaan dëkk yi daa mel ne mat na téeméeri dëkk de su ma ko toppoon dama damay lim Afrique ak Europe yëpp ëpp na ko c'est-à-dire nag boo mbappatee ba pare am don jàngi waaw da ngay doo bokkat ki nga xam ni dafa xëy xëy rek taxaw bëgg bëgg def du ngeen yem te li ci gën a garaaw mooy des fois nga gis benn comédien bu neex gaa yëpp di ko bëgg. Mhm. ci senegal mais man su ma koy xool duma wax parce que soo waxee ñun daa soxor di mhm. mais da ngay xam ni techniquement ki taxawul. li muy def nekkul ci moom. non maanaam taxawul aayul. dëgg la aayul dëgg maanaam la muy taxaw di dégager. Mhm. li ngay dégager bouger woo. adduna bi di toj nit ñi rey seen bopp non dafa am euh, euh, technique boo koy defee parce que sénégalais yi léegi kenn mënul leen a nax. mais euh, il fallait que nga jàng mbir pour xam ko soog ko def. kon sa liggéey bi doyen génne na la génne na la dëkk bi yóbbu la Europe. bien sûr Paris Italie. Mhm. Portugal dem ay programme yu mag foofu ba tey foofu la ñuy taxaw doyen mhm. ndax kon nañ koy waxee mhm. euh, da ngeen ni yéen yéen yéen artistes yi laay wax mhm. li ma jaaxal ci yéen mooy da ngeen di commencé liggéey war a sàcc seen bopp walla investir dara doo leen ko def da ngeen di topp maanaam bës bi. Mhm. wala ngeen topp mu mbaay bi. Mhm. ba doo leen sàcc seen bopp ba bu leen dara dalee. Mhm. mu dem bañ leen di ñaanal ndimbal ci télé yi wala ñu di leen ketal. te lan moo tax doo leen sóoraale ni yéen bis mi ngi ñëw. seen i âge ngi gën a dem. feebar mun na laa dab wala yu demee ni ki noonu. lan moo tax doo leen sàcc seen bopp. ba bu leen feebar dalee ngeen ngeen ngeen mënal ci seen bopp dara. ba réseaux sociaux di ko yëg. waaw ñun moom dañuy sant yàlla. ñun ñu nekk télévision Futurs dañuy sant yàlla bu baax loolu daluñ Sénégal nag ci rumeur la ñuy dox boo dox ci rumeur nag xamoo lu xew waaye Futurs Médias soo fa nekkee am fa contrat bu wóor boo feebaree kenn du la ketal ñu lay faj te loolu yàlla suturaal nañ ci man mii tey su ma feebaroon yàlla tere yàlla te Futurs Médias moo may faj kon loolu jeex na ci ñun kantaan nag sàcc sa bopp mhm. daf ci am solo parce que nit boo yëngu ci dara di am dara war nga chaque fin du mois nga denc dara dara gënta yées aar ba bàyyi aar te mënoo taxaw ni kër gi maa ko ci tabax wala oto bi maa ko ci am wala lii maa ko ci def. dëgg dëgg dara moom échec total la. yàlla nañ ci yàlla loolu ñun jeune talent yi ñun jeunes yi yi nga xam ni euh, dañ fi fekkoon suñuy mag suñuy maam ñu jaaroon fi fañ mujj gis nañ ko. ñun war nañoo fu ñu toogaay bu baax. dëgg la ba loolu leen daloon ñun bu mu dal. waaw donc daal sàcc sa bopp googu am na ci solo. Mhm. te incha allah ñu ngi ci woon mais gën nga ñu cee yokk dinañ ci gën a am taxawaay.